ñu dellu siwaat suñu jataay bi ñu tudde madinatul ilmi ñu di ko amale fii ci sunu ak 24 actu tey jii nag ñu fas yéene cee dalal benn borom xam-xam di ci waxtaane kenn ci mag ñu baax ñi muy sëriñ Saalihu Mbakke moom lañ fa yéene dalal ñu fas yéene waxtaane ki nga xam ne moo di sëriñ Abdou Dia Douyoly nga xam ne yaakaar naa ne ñu bare bare xam nañ aw turam waaye tey ñu fa yéene waxtaane aw meloom ak jikkoom ak kan moo di aw askanam ginnaaw bu nuyoo ñëpp siyaare ñëpp di dellu siwaat kon ci jataay bi suñ saaliw ñu ngi lay siyaare baax ci jataay bi di la ndokkeel di la dalal jàmm jox la kàddu nga nuyoo ñu tàmbali waxtaan bisimilah aoudu billahi min alcheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla tey julli ci yonante bi salallahu alayhi wa sallam di leen nuyu ci nuyoo bi lislaam di jiital ci nuyoo bi xalifatul am li tariqatil muridiya cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di nuyu a cheikh Habibullah ñu gën koo miin ci sëriñ maam Balla Mbacke xalifab sëriñ Abdou Dia Mbacke di yooyu li mi nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaane tey ak dundam di leen nuyu sëriñ Saliou tey jotil te di la jotil loo sunu nuyoo ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa kër gi. di nuyu mboolem ñu ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi jërë ngeen jëf kooku mooy tey sunu ñu wax seeni waxtaane ni ma leen ko waxe woon ci tàmbali bi sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly leen fas yéene waxtaane eh, ñu fas yéene nañ jëkkante tomb xamle mooy kan ci askanam fan la ganee àdduna fan la jànge bu ko defee loolu mooy doon xaaj bu njëkk bi beneen xaaj bi ci des nag dinañ waxtaane digganteem ak sëriñ Touba ci xam ne na mu nekkee woon ci kippaaram yaroo fa nan la ko sëñ bi doon tarbiye ak ci wan melaw bu ko defee jeexale nag li nga xam ne mooy bi mu jógee ci sëriñ bi nag nga xam ne sëriñ bi daf ko yi ngir mu war a dem moom it mottali ji tasaare liggéey boobu nan la ko tasaare rawatina ci dëkkam bi ñuy wax Doyoly loolu mooy doon tomb bi sëñ bi kon ñu njëkkante kii bi fi mu bëggoon a xam kan mooy sëñ Abdou Dia Doyoly ci tàmbali waxtaan wi lan ngay wax. ok jërëjëf sëriñ Saliou Niang sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly aw turam mooy Abdoul Qadir ndax ñu ngi ko tuddee maamam. di maam Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy taaw maam Balla Aïcha sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly nag mi ngi feeñ jamono ci atum 1882 ci euh, judd yonente yàlla Isa tolloog ama sasin di atum 1300 ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi feeña jamono ci dëkk bu ñuy wax jañal ca Saalum waajur yi nga xam ne ñoo ko meññi mooy sëriñ Mbacke Soxna mooy waajuram mu góor sëriñ Mbàkke soxna maam Abdul Xaadir moo ko jur moom laay tudd léegi ne moom lañ tuddee sëñ Abdou Dia maam Abdul Xaadir moomu mooy màggi Maamor Anta Salim mi meññi ku baax ki xaadimul rasul di doom yi maam Balla Aysa di doom yi maam Maharam bu dee waajuram mu jigéen moom sëriñ Abdou Dia mi ngi tudd soxna Khadija Touré soxna Khadija Touré nag ñu ngi ko gën a miine ci soxna Dia soxna Dia di doom yi soxna Faati Balla Suxra moom maam Balla Aïcha kon nga gis ne sëñ Abdou Dia Mbacke yooyu li ñaari wàllam yëpp day dellu ba ci maam Balla Aïcha waaye ñaari wàllam yëpp Serigne Touba Xaadim Rasul di waajur ci moom soxna Khadija moomu ma tudd yit dañ gën koo miine ci soxna Jature mooy soxna ci soxna si Serigne Touba njëkk a dëkkoo taawloo ca soxna Fatija di taawub sëriñ Touba euh, moo tax Serigne Moussa Ka waxoon ca way wa ne Cheikh Abdoul Khadir Ja borom duyooli ñoo bokk ndey am nay wataak ay booli ñoo bokk ndey lim ci nam mooy mook soxna faar ja taawub sëriñ Tuuba ñoo bokk ndey am na yoo taak ay booli bi nga xamee ne feeñ na jamono nag moom sëriñ Abdou Ja Mbàkke di yooli ni nga xamee ne ni lan ko baaxoo xamee ci mboolem doomi soxna yi ci wàllum njàng dafa jaar fi mu war a jaar yépp ci wàllum njàng njàngum alxuraanam ni nga ko defee ci ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Ramata bi nga xamee ne jàng na alxuraan ba mokkal ko te teel koo wattu lool mokkal ko it mokkalin wu rafet mënoon a bind yit lool soobu ci wàllu njàngum xam-xam jàng na xam-xam ci maam Thierno Ibrahima Fati borom Darou Mouhty waaye jàng na xam ci maam Mor Jaara magi mag jànge it na jàng na xam-xam jàng jàng na xam it ci ku ñuy wax sëriñ Gallaa Jaw nekkoon ca Njàmbur doonoon boroom xam-xam bu mag boo xam ne ñu bari miin nañ ko wax nañ ne sax bi sëriñ Touba jugee ci tukkib géej gi ba jaar foofu yi ci Sanusi diirub euh, lam fa def yëpp da daan baagante euh, ca sëñ Gallaa Jaw mboomee ci dëkk boobee mu ne woon ñu daan ko wax njàng jaw bi nga xamee ne nag Serigne Abdou Mbacké Doyoly euh, jaar na ci barab yooyu yi nga xam ne jaar na fa ci ay jaaruwaay ci wàllu xam-xam mujj géeju lool ci fànni xam-xam yu bare bari yu fa santi ci la xelam demee nag ci jaayante ji ak Serigne Touba fekki ko fa mu nekk ngir euh, jébbal ko bappam waaye ngir jébbal ko léppam kon Serigne euh, Saliou ci gàttal Serigne Abdou Dia Mbacké yooyu noonu la demee ci wàllu askanam ni mu bokkee ak Serigne Touba waaye tamit am njàngamit noonu la ci la la noonu la la la la la demee euh, kon sëñ Saliou manees naa delloo foofu kàddu gi ba ci kanam incha allah. barkala jërëjëf mbokk yi kon yaakaar naa ne résumé na lu gàtt gàtt gàtt ci wax ki nga xam ne moo di Sëriñ Abdou Dia Doyoly eh, ñan la bokkal kon bu nu delluwaatee day bokk ak sëriñ bi ñaari wàll yi eh, doon koo xamante ni yàlla defal ko mu bokk ak taawu Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo di soxna Faati Ja loolu rek yaakaar naa ne doy na manoore doy na wane ne sëriñ bi ci askan wu sell foofu la Sëriñ Abdou Dia Doyoly bokk Euh, ñu fas yéene nag dugg ci ni mu ko waxee wax na ne jàng naa alxuraan boo bind ko jàng tamit mokkal ko mokkal gu rafet jàng xam-xam ci lu gaaw ba noppi kon li des ci moom nag mooy wàllu tarbiyaam ak wàllu euh, ban jamono la jaxasoo sëriñ bi joxe tàbbi ci loxoom ci wàllu tarbiya nekk ak moom fan la jaayante tamit loolu mooy laaj bi. waaw ah, kay jërëjëf sëriñ Saliou Euh, ni ma ko waxee léegi bi nga xamee ne noppi na ci njàngam dafa tolloog Serigne Touba di door a jógee ci géej gi muy atum 1900 1902 yóbbu ko gànnaar ci atum 1903 ci biir at moom yi di ci la Serigne Abdou Dia Mbacké laaxase bind ab kaamilam doxe doxeek tànkam fii ci Sénégal ba gànnaar fekk fa Serigne Touba ba mu demee jébbal ko boppam jébbal ko kaamil boobu yi nga xam ne moom la bindoon ci loxoom jamono boobu it ku ne xam na ne euh, yoon wi bëri woon na ay gàllankoor lool ndax booba rab yi àll yaa ngi fi dogaalekati yoon yaa ngi fi yeneen ak yeneen a ngi fi mu ànd ak dogu ak euh, laxasu ak takku ngir fas yéene jaayante ji ak sëriñ bi ba tax na mboolem lu ne woon ci yoon wi ci gàllankoor ragalu ko woon bayiwu ko woon xel te li ci gën a yéeme mooy jamono bi muy def loolu ci ñaar fukki at rek la toll ah, booba ñaar fukki at rek la toll ndax nee naa la léegi 1882 ci la gën a jamono 1882 ba 1903 boo ko xoolee ñaar fukki at rek lay war lay war a toll ba mu demee jébbal Serigne Touba boppam jébbal ko ab kaamilam sëriñ Touba tee ko fa diirub lam nekk gànnaar euh, mu nekk faak moom di ko bindal Serigne bi doon ko tarbiya ci alxuraan ci alxuraanul karim la ko Serigne Touba doon tarbiya mu bindal ko fa li mu ay kaamil yu baree baree bari mbind moom sax wax nañ ne am na bis mu sëgg di bind moom sëriñ Abdou Jambake Diol yi ba sëriñ Touba ne tëll yam ci moom yërëm ko ci sëggaayu mbind mi ba tax mu doxe ginnaaw dox ak tànkam yu tedd ya moom sëriñ bi ba tolloog ginnaaw ak sëriñ Abdou Jambake Diol jël ngas ka gasal boppam moom sëriñ bi ci loxoom yu tedd ya ba mu xóot mu sàmm fa ab bant ne ko Abdul Xaadir booy bindati deel wéeru fii moo tax euh, loolu liñ ci mën a jàngate dafa bari ndax damay faral di wax ne Serigne Touba mënoon na ko mënoon na koo def loo mënoon na ne ko gasal fii booy booy bindati di ci wéru mënoon na koo sant it keneen waaye moom sëñ bi moo ko defal boppam loolu day wane fonk goo xam ne Serigne Touba fonkoon na ko alxuraanul karim ndax euh, lépp lu laal ci alxuraan rek Serigne Touba moom loola da koy màggal loola da koy sopp loolu da koy da da da da koy yëkkati moo tax jëf jooji yi loolu mënees na ko cee jàngate waaye diirub la muy nekk gànnaar it sëriñ Abdou ja Mbacke Diol yi daan doxal sëriñ Touba lu baree bare ci digganteem ak surafaaw yi nga xam ne ñoo nekkoon foofa ca Mauritanie sëriñ Touba daa ko yónni ci ñoom euh, ku mel ni Cheikh Sidiya Baba sëriñ daana ko ci yónni lu baree baree bare am na am na ci net li sax bu siiw boo xam ne nee nañ mook sëñ moor Soxna taw maam moor Jaara ñoo àndoon ci yoon yónnentu boob yi sëriñ Touba yónnee woon leen ñoom ñaar ci Cheikh Sidiya baaba am lum leen ko doon joxloo wax nañ ne bañ demee ay mbuus la woon yoo xam ne juróomi mbuus la yoo xam ne bu ci nekk téeméeri dërëmi ngurdu moo ca to moo ca nekk ñu boole ko noonu jox leen ko ngir ñu yot ko Cheikh Sidiya Baba ban demee Cheikh Sidiya Baba tekk lu mbuus yooyu bu ci nekk benn par benn mu wàññilu ko ba muy juróomi téeméeri dërëmi ngurdu ban génnee sëñ Abdou Dia Mbacke Doly ne Mm, Cheikh Sidiya de lim tekki mbuus yi suñ kanam wàññi ko ci suñ kanam moo tax ñu xam lu ci nekk waaye bu ko wàññiwutoon de wala bu ko tekkiwutoon suñ kanam suñ kanam de duñ xam lu ca nekk loolu di wane ak maandu ak góor goo xam ne sëriñ bi doon na ko jëmbat ci ñoom waaye tamit eh, mu saxoon ci ñoom gànnaar yi doonoon étape bu tar boo xam ne ku ne xam na ne dund ga metti woon na lool ndax néewoon na am ndox naka noonu it eh, lekk ga néewoon na lool ndax euh, sëriñ Abdou Dia ci boppam daana ko nettali ak njabootam lu baree bari hmm. euh, ba ci sëñ Afia Ñang mi nga xam ne bokkoon na ci ña fa nekkoon moog sëñ Abdou Dia sax ñoo àndoon mi ni dem hmm. maa ngi dégg sëñ Afia Ñang mi di sëtu sëñ Afia Ñang mu mag moome hmm. di wax ne euh, sëriñ Afia ci boppam nettali na sëñ Modou Mamoun Ñang ne ba ñuy nekk gànnaar day waxtu ba waxtu wa delsi lañ daan jëfandikoo te lañ daan jëfandikoo mu ngi toll ci benn euh, tibb baraay boo xam ne Serigne Touba bu masaana génn ci waxtu yor-yor da yor mbuusug baraay muy cere ju wow mhm. euh, yor genn satal ndox bu ñi bu génnee mboolem ña fa nekk ku nekk ci ñoom benn tibb baraay la lay jox nga seex ko mu tànk ci satala gi ak kubéer nga jàll lekk ko te bala ngaa lekkaat waxtu wa daa dellusi ca euh, ca ëllëg sa loolu tegtale tàggat goo xam ne Serigne Touba daane leen ko tàggat ci xiif ak ci marta loolu dafa bokk ci ponki tasawuf sumtun wa joxoon tawilun googu muy wax ca xuqal euh, bu kaaw euh, nga gis ne kon euh, ci anam yu metti lañ fa nekk woon environnement ba it doonoon environnement bu metti boo xam ne xeeti gunóor yeeg xeeti lor yi bari woon na fa lool waaye Serigne Abdou Dia Mbacké Doyoly li muy doon doon tuut tànk teewul mu ànd akuk dogu nekk ci keppaaruk Serigne bi. jërëjëf Serigne Saliou naa ne macha allah waxtaan wi daanaka tënku na. ndax ginnaaw bu ñu xamee aw askanam xam fi nga xam ne ni la jànge ni la ko sëñ bi yare waaye sëñ bi nag tànnoon li gënoon li mu gënoon a fonk doon ko ci tarbiya doon ko ci tarxee mooy alxuraan ku nekk xam na ne alxuraan moo doonoon li sëriñ bi gënoon a fonk bi muy nekk daaru gànnaar it amoon na fa daare kaamil ñàkkul mën naa am bokkoon na ci daare kaamil wala mu nekkoon fa comme doon na fu bind rek nekkoon na ci ñaari étape yi gën a naqaree tarbiya nga xam ne tarbiya yu metti la bokk na ci boobu muy cëyeen bokk na ci ak gànnaar ak biir tuubaa jëmmi sañ ci Touba bi it ku nekk wax na ne metti woon na lool te jaar na fa ba sëriñ bi gërëm ko euh, seereel ku ngërëmal yonante bi tamit sallallahu alayhi wa sallam ak ngërëmal boppam yaakaar naa ne loolu nga wax ne yombul mu daje ci histoire ci kenn nit koo xam yooyu rek moo daje loolu nag lékk ko may mooy alxuraan ji mu ko woon alxuraan moom ku ci nekk moom da nga cee nekkal yoonu da nga cee nekkal yàlla mi nga xam ne moo ko wàcce waaye yonante bi ko jottali ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne loolu lu mu am rek alxuraan a ko may kon sëñ bi ñu ñëw ci point njaareem ndax moom nekkoon na njaareem ak euh, ginnaaw bi mu demee ngërëm yooyu nag fan la demoon sanc faak mooy mooy boole laaj boobu laajab ndax demoon na njaareem ginnaaw de douze côté yooyu la fi te sëñ bi jamono yooyu rek la tox njaareem bi mu jógee ci yéen Euh, ak laaj bi ñu ci boole mooy laaj laajam nag sëñ Abdou Dia bi mu toogee nag lan la doon tarbiya ak nan la doxalee liggéeyam. nekk gànnaar muy juróomi at 1903 ba 1907. bi 1907 euh, bi nga xamee ne sëñ Touba mi ngi dem ci yeen jolof boole ko ci ñi nga xam ne ñoom la àndal ci yeen jolof mu ànd ak moom ba mu demee foofa it mu mot li fa ab liggéeyam continuer di liggéeyal Serigne Touba ci alxuraan di ko bindal ay kaamil lam ko bindal ci ay kaamil waxuma la kaamil yi nga xam ne euh, mooy mooy kaamil boppam yi waaye kaamil bokkaate yi rek bindoon nañ ci lu toll ci euh, ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ndax foofa wax nañ ne moom Serigne Abdou Dia Mbacké Diwéli ak Serigne Modou Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadil ak sëñ Mor Soxna ñoom ñent ñoo ñi la sëriñ Touba boole woon benn nekk sëriñ Abdou Jambaak Duyeli doon bokk ak sëñ Fallu benn lal sëñ Mor Soxna taw Mamor Jaar ak sëñ Modou Moustapha di bokk benn lal néeg boobu def nañ fa diiru juróom-ñaari weer juróom-ñaari weer yooyu it wax nañ ne weer wu nekk ku nekk si ñoom dina bind ab kaamil bi juróom-ñaari ñu indi limub kaamil yi sëriñ bi mu toll ci limub ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett toll ak xarafi Touba sëriñ bi ne lii day mooy li mu xarafi tuuba bég ca lool ngërëm leen ca gërëm leen ca ngërëm lu rëy rëy ba tey wax nañ ne euh, sëriñ Abdou Dia Mbacké Doyory bokkoon na ci ñi daan niital sëriñ Touba bu daan bind guddi waaw ñi daan niital sëriñ Touba bu daan bind guddi di ko taalal ay jum yooyu di ko tiim ak di ko dàqal euh, yi nga xam ne ñooy gunóor yeeg xeet yooyu loolu sëriñ Abdou Dia Mbacké Doyory bokkoon na ci loolu di wane ak taqoo goo xam ne takkoo woon na ko sëriñ bi waaye foofa ci Ceyeen Jolof nag fa la mottalee ab liggéeyam xëy na du soreek 1911 euh, euh, euh, ndax sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly ci boppam loolu sëñ Maam Balla mii xalifa bi ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko nettali na ma ne sëñ Abdou ko nettali nee na bi ko sëriñ Touba gërëmee ba ca déwén sa ci la ñëw njaareem ah, te 1912 ñëw njaareem muy atum atum la sasin bi nga xamee ne sëriñ Touba woolu na ko moom sëriñ Abdou Dia Mbacke Doyoly foofa ci ci Thiène Jolof di ko seedeel ak ngërëmam da ko gërëm ngërëm loo xam ne liñ koy dégg ci histoire yoonu murid bariwut ndax ngërëm lu kawe la di ñeenti ngërëm yoo xam ne Serigne Touba daf ko ko béralal euh, ne ko gërëm naa la ndax dane ko yàlla sunu borom gërëm na la ne ko Abdul Xaadir mu ne ko Mbàkke mu na la ne ko Abdul Xaadir ko Mbàkke mu ne ko alxuraanul karim gërëm na la xam nga ne ci alxuraan la ko doon liggéeyloo ne mu ne ko Mbàkke mu ne ko gërëm naa la ko ñeenti ngërëm yooyu ngërëmul yàlla ngërëmul yonante bi ngërëmul alxuraan ngërëmam moom sëriñ bi. bi mu ko gërëmee it jox ko ay barkeel yu bare bari euh, bokk na ci barkeel yooyu. Euh, mbubb moo xam ne Serigne Touba moo ko daan sol ci jëmmam ju tedd ja mu yëkkati ko jox ko Serigne Abdou Jamak ak dàll yoo xam ne moo ko daan sol ci tànkam yu tedd ya jox ko ko ak yeneen ay kaamil alxuraan ak ay gaal ak yeneen ak yeneen yu bëree bari xam ne barkeel yooyu ba léegi mi ngi ci kër Serigne Abdou Dia di ndono loo xam ne lu ñu fonk la benn rek moo ci manqué muy mbub ma te mbub ma sëñ Touba da ko waxoon ne ko mbub mii day bu ëllëgee bu ma lay gisaat naa la gis ak moom moo taxoon Serigne Abdou Jambake di yoolu dénkaane woon ne bu ma fi bu ma fi bàyyi ko nañ ma dencaaleeg mbubum mbub mi ah, ndax loolu la ma Sëriñ Tuubaa waxoon moo tax gis nga mag ñi ni ñu déggee déggee sëriñ bi hmm. ah, ndax dégg dégg sëriñ bi moo tax mu dénkaane loolu ne bu fi bàyyi ko bu fi bàyyi ko nañ ko dencaaleeg mbub mi xam ne bi muy dem keroog hmm. mbubbu Sëriñ Tuubaa lañ ko solal loolu di loo xam ne cër bu kawe kawe la bu rëy rëy la barkala jërëjëf sëñ Saliou yaakaar naa ne macha allah waxtaan wi daanaka tënku ndax ginnaaw bu ñu xamee aw askanam xam fi nga xam ne ni la jànge ni la ko sëñ bi yare waaye sëñ bi nag tànnoon li gënoon li mu gënoon a fonk doon ko ci tarbiya doon ko ci tarxee mooy alxuraan <coughs> ku nekk xam na ne alxuraan moo doonoon li sëriñ bi gënoon a fonk bi muy nekk daaru gànnaar it amoon na fa daare kaamil ñàkkul mën naa am bokkoon na ci daare kaamil wala mu nekkoon fa comme doon na fu bind rek nekkoon na ci ñaari état bi gën a naqaree tarbiya nga xam ne tarbiya yu metti la bokk na ci boobu muy Ceyeen bokk na ci ak gànnaar ak biir Touba jëmmi sañ ci Touba bi ku nekk wax na ne metti woon na lool te foofu jaar na fa ba sëriñ bi gërëm ko seereel ku ngërëmal yonante bi tamit sallallahu alayhi wa ak ngërëmal boppam yaakaar naa ne loolu nga wax ne yombul mu daje ci histoire ci kenn nit ko xam yooyu rek moo daje loolu nag li ko may mooy alxuraan ji mu takkoo woon alxuraan moom ku ci nekk moom da nga cee nekkal yoonu da nga cee nekkal yàlla mi nga xam ne moo ko wàcce waaye yonente bi ko jottali ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne loolu lu mu am rek alxuraan a ko may kon sëñ bi ñu ñëw ci point njaareem ndax moom nekkoon na njaareem ak euh, ginnaaw bi mu demee ngërëm yooyu nag fan la demoon sanc faak mooy mooy boole laaj boobu laajab ndax demoon na njaareem ginnaaw de douze côté yooyu la fi te sëñ bi jamono yooyu rek la tox njaareem bi mu jógee ci Euh, ak laaj bi ci boole mooy laajam nag sëñ Abdou Dia bi mu toogee nag lan la doon tarbiya nan la doxalee liggéeyam. kay jërëjëf sëñ Saalihu euh, bi nga xamee ne Sëriñ Tuubaa yeewu na ko gërëm ko foofee ci Ceyeen Jolof da ko jox ndigal ne ko na nga wër réew mi te bu ëllëgee foo ma dégg nag ma fa fekk. moo tax sëñ Abdou Dia Mbàkke di bi mu jógee mm, Ceyeen Jolof jaar na ci ay barab yu baree bari fi mu njëkk a jaar mooy fi ñuy wax ñaseen fii ci euh, fii ci Njëgeej. foofa it la waral mu wàccoon fa mooy bi muy nekk ci yenn jolof moom sëñ Abdou ja sëñ Touba da ko daan yoon ni lu bare bari ci sëñ Mbàkke Ibra ca Mbàkke Kajoor xam nga ne sëñ Mbàkke Ibra waajur la ci sëriñ bi doonoon ko sëriñ Touba fonk lool ndax sëriñ bi ci boppam wax daana wax ne daana ko wax ne ko yow day sama borom digal na ma lépp loo ma digal naa ko def loo tere naa ko bàyyi te it sëñ Touba fonk ko fonkoon moo tax mu daan ko wax bàyyi Ibra daawut daawut sax sàll loo turam Euh, sëñ Abdou Dia Mbacke di yoon nag sëñ Touba da ko daan yoon yónni lu baree baree bari ci sëñ Mbacke Ibrahima moomu jamono yi mu nekk ci yéen Jolof mm. bu ko masaana yónni nag mu doxee ci yéen Jolof jëm Mbacke Kajoor daan wax ci ci dëkk boobu yi ñu daan wax ñaseen ci la ko waa dëkk ba xàmmee ba looloo sabab euh, ku ñuy wax Birama Asta Ñas doon doom yi ku ñuy wax Maxu Jambeng Ñas dëkkoon foofu ci ñaseen bi mu jugee ñaseen ñëw ci yéen Jolof fekk fi sëñ bi ngir jaayanteek moom mm. sëriñ Touba da laaj koo xam ci fere yi mu ne ko sa doom ji ñuy wax Abdul Xaadir de xam naa ko far ci tawféexi sëriñ bi sëñ Abdou Dia agsi ci jotaay ba mu ne ko kii laa lay sëriñ Touba jàpp ci loxol Birama Asta Ñas ne ko boole naa la ak jëmm ji doy na la sëkk na man ngaa yam ci moom loola di firnde di firndeel ne sëñ Abdou Dia Mbacke Doyoly jamono boobu rek nga xam ne booba sax fekk na sëriñ bi eh, gërëmagu ko jamono boobu rek fekk na mu mat sëkk sayxu tarbiya fekk na it mu mat sëkk sayxu ya ndax sëriñ Touba du boole nit ak ak ku munta defare mbaa ku munta eh, yeggale nit ca yàlla moo tax sëñ Abdou Dia Mbacke Doyoly wàcc foofu foofee ci ña ñaseen ci taalibeem boobu ñu wax Birama Assane di taalibe bi mu njëkk a am nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko booleeg moom ba mu fa wàccee sanc ab dëkk ca wet ga tudde ko Daaru Ñas ba mu ko sancee it eh, daf dafa dëkkal taalibeem boobee daal di continuer doxam jaar na ci ay barab yu bare bari fu ñuy wax ñukk jaar na fa nekk fii ci région de Mbour eh, bi nga xamee ne nag dégg na dégg na ne Sëriñ Tuubaa ñëw na njaareem te Sëriñ ne ko boo liggéey foo ma dégg ci réew mi nag ma fekk ci la fekk see Sëriñ Tuubaa njaareem kon sëñ sëñ sëñ Abdou ñëw na njaareem fekk fa sëriñ bi mu fa leeral ko aw yoonam fi mu jaar yëpp euh, sëriñ Touba jox ko ndigal ne ko boo xëyee na nga jublu penku te fu la waxtu tisbaar fekk na nga fa def ay mandarga te delsi bi mu defee loolu delsiwaat sëñ Touba sëriñ bi xamal ko ne ko barab boobee day boo demee na nga ko sànci nekk fa yaag ñi ànd ak yow bu yowmal xiyaamee ngay seenu lay bu yowmal xiyaamee ngay seenu lay ne ko barab boobee it ba ma bi may wër Touba jaar naa fa sama borom xamal xamal ma ne ci barab bi la bokk ne ko dem fa nga sànc ko tudde naa ko daaru salaam daaru salaam la sëriñ bi joxe tur wi jëmmi tund woow nag moom lañ daan woowee duyool yi waaw moo tax bi ko sëriñ Touba joxe turu daaru salaam ñu ci iddaafa maanaam euh, duyooli gooy gi nga xam ne naka jekk moom lañ ko daan woowee wala fi nag ñaare dañuy bëgg lu gën a yomb rek moo tax ñu ci bëree bëri sax du duñ àgg ci daaru salaam ji duñ wax daaru salaam duyool duyooli rek la ñuy wax waaye tur wi moom mooy daaru salaam Ah, wax nañ ne sax sëriñ bi nee na ko diirub li may nekk ci ci ci ci ci tukki bi hmm. sama xel ngi woon ci sancaat ab dëkk tudde ko Daaru Salaam hmm. ah, ne ko ko demal tudde naa ko Daaru Salaam ah, wax nañ ne ginnaaw Daaru Salaam gi hmm. ginnaaw Daaru Salaam gaawaan gi eh, Daaru Salaam duel la Sëñ Tuuba mooy ñaareel dëkk bu Sëñ Tuuba eh, jo joxe tur yi tur woowu di Daaru Salaam ko sancee nag nam fa nekkee woon rek mooy li ko li ko sëriñ bi digal ci ñi màndal ndax sëriñ Tuubaa moom euh, boo gisee mu daan sanclu ay dëkk ak di tofal nit ci euh, di tofal ay mbooloo ci nit loola lam ca jublu rek mooy euh, maanaam gën a yaatal li nga xam ne mooy mission te mooy gën a yaatal woote bi muy woote nit ñi ak bëgg a xeet nit ñi jëme leen ci yàlla loolu it dindiroog futuxaat yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def nga xam ne taxoon na mu tasoon saaba yi fu nekk ku nekk ci ñoom mu yabal la fenn ngir nga yaatal fa liggéey bi moo tax sëñ Abdou Mbàkke Doyoly ba mu nekkee foofu ci Daaru Salaam Doyoly la mu fa nekkee woon rek mooy di yar nit ñi ci xam-xam waaye di leen tërbiya di leen tas di leen di leen ginnaaw boo xamee ne euh, tasfiya na leen waaye tamit euh, nekk fa nekkin woo xam ne wu wu yéeme la ndax euh, moom fu mu mas a nekk rek Sëriñ Tuubaa la fay nekkal ba tax na diirub lam nekk Daaru Salaam di yool dafa dafa continuer woon mel ni mi ngi ni mi ngi nekk ci ron keppaaruk sëriñ bi di ko tërbiye wu ba tey ndax lu masaana amee foofa moo xam luy ñoree ci mbay ma la moo xam mattum jalamaan ma nga xam ne amoon na ca euh, barab boobee ci tundoowee te sëriñ bi joxoon ko ci ndigal ne nañ ma koy andil ndax da ko yitte woo ndax mattum jalamaan moom la sëriñ bi daan jëfandikoo ci guddi moom la daan taal di ko niitoo ci guddi gi la nga xam ne diirub mën nañoo wax ne diirub la la fa sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa nekk njaareem fukki at ak juróom yooyu natt moomee daan jóge Daaru di yooli ci la daan ci la daan niitoo loolu it di wane ne sëñ sëñ Abdou Diambacké di yooli suyee na rôle bu am solo ci li sëriñ bi mm-hmm. ndax bi mu nekk ci yéen euh, wax naa la léegi na ci ñi daan niital sëriñ Touba waaye ginnaaw bi ko sëriñ Touba joxee ndigal mu sañ ci di yooli it mm-hmm. bokk na ci ñi nga xam ne ñoo daan niital sëriñ bi diirub lam nekk njaareem euh, ba ci matt moom yi sax wax nañ ne am na benn bis mm. euh, taalibe yi nga xam ne ñoo ko doon indi ndax dañ daan def ajjuma ajjuma ba ajjuma lañ ko daan dañ ko daan dajale bu ajjuma ñu yanu ko taalibe yi wax nañ ne fanweeri taalibe yi lan lan daan doon ku nekk yenu aw say mm. ñu doxee Daaru Salaam du weli ba njaareem andi ko am na ajjuma joo xam ne nag dañoo ñëw mm. bi ñu ñëwee euh, ba teg matt mi ba noppi ba war a delluwaat ñu xamal leen ne leen bu ngeen ne néggandi ko tuuti de léegi sëñ bi génn ngeen man koo siyaare ñoom yooyu Euh, bi nga xamee ne neggandiku na niskit niskit sëriñ bi daal di daal di daal di génn ñu siyaare ko ñu nuyoole kook euh, mbooloo moom mu nga xam ne ñoo jóge Daaru Salaam di yooli xamal ko ne ko ñii de ñoo bàyyi ko sëñ Abdou Dia sëñ Abdou Dia euh, sëñ Touba laaj leen ne leen ana Abdul Xaadir ndax Abdul Xaadir la ko daan wooye ko ana Abdul Xaadir ñu ne ko ma nga fa ab jotaayam daawut yàgg mu tàllal ñaan bi mu ñaanee bay tifli nag loru aw loram moom sëriñ bi dal dal euh, dal ci bopp kenn ci taalibe yooyu muy ku ñuy wax Maxtaar Fall wax nañ ne keroog Maxtaar Fall dafa dafa dafa daanu dafa yuuxu ca kaw ne sott sottal nan faawu de ndax ku xéewaluk sëriñ bi dal ci sa bopp loolu tawféex la ban demee la ca gën a yéeme li tax ma koy nett mooy loolu day wane pëstéefu Sëriñ Abdou Dia ak cofeel goo xam ne amoon na ko Sëriñ Tuubaa xam ngeen ne sëriñ bi moom euh, maanaam am amuk cofeel ci moom rek mooy jariña ci moom euh, ndax boo amutuk cofeel ci moom doo ko mën a liggéeyal tey doo mën a jariñu ci moom waaye lay firndeel cofeel gi Sëriñ Abdou Dia amoon ci Sëriñ Tuubaa mooy bañ demee nettali ko yoon wa xamal ko ne ko ah nun day dem nan ba ñëw waaye suñu yoon yu wuute na ak yoonu njëkk ya ndax gis nañ Sëriñ Tuubaa biñ nee ko gis nañ sëñ Touba rek ci la tàmbalee tàggoog sagoom leen mm. eh, gis ngeen sëñ Touba ñu ne ko waaw te moom xoolal lam taxawoon ak sëñ Touba ca gànnaar rek ca ci yéen jëlo fàtte na loolu sax mm. eh, ñu ne ko yëmu yëmu ca waaye laaj na la mu ne sëñ sëñ bi laaj na ma ñu ne ko waaw mu ne ñaanal nañu it ñu ne ko ñaanal nañu it te bi mu ñuy ñaanal bay tëfli mm. eh, ak xéewalam daa dal ci bopp Matar Fall mi keroog sëñ Abdou Dia dane bërët song Matar Fall di fa leen moom ci suuf si ngir ne bopp bu lor sama sëñ ba dal de faaw ma barkeelu ci moom loolu di wane pëstéef ak euh, euh, cofeel gu kawe goo xam ne amoon na ko ci sëriñ bi kon ci gàttal sëñ Saliou noonu la sëñ Abdou Dia Mbacké Doyoly euh, nekk woon Daaru Salaam Doyoly Daaru Salaam Doyoly di dëkk bi nga xam ne nag daf ko sànc ci ndigalul sëriñ Touba di dëkk bi nga xam ne fa la ñuy defee màggal gi nga xam ne moom lañ koy defal defal waxtu sëñ Abdou Dia ñi ko wuutoogun ci xalifa ci juróom la ñuy toll ndax sëñ Seex Abdou ab taawam moo ko njëkk a wuutu ku ñu wax sëriñ Saalihu topp ci ku ñu wax ma Mahamadan topp ci ku ñu wax Baye sëriñ Mbàkke di sama waajur topp ci sëñ Maam Balla mii fi nekk euh, moo ko moo ko moo ko wuutu di juróomeelu xalifaam ñu ko ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko te magam yooyu yi nga xam ne ñoo jiit suñu borom dool leen tawfiix bu baax a baax euh, Daaru màggal gi dañ koy amal Euh, fàttaliku liggéey bi nga xam ne moom la sëñ Abdou Dia Mbacke Doyoly doon liggéeyal sëñ Touba ba mu gërëm ko mm-hmm. waaye tamit ngir di ko ko ci ay ñaan muy euh, lu am solo loo xam ne lu mat lu mat a bàyyi xel la mu war doon ren. Mm-hmm. Euh, le 12 janvier. Mm-hmm. di samedi bii di ñëw incha allah. Mm-hmm. am na it conférence bu mag boo xam ne sët yi dañ ko koy waajale fii ci euh, këram gi ci tuuba jàkkaarloog jumaa ji. mu war doon le 7 muy altine di war a doon suba rek incha allah. moom it di bis bu am solo boo xam ne bisub xam-xam la. waaye bis la boo xam ne yu baree baree bari dina fa feeñ ci wàllu jaar-jaari mag ñi. waaye tamit rawatina diggante Serigne Touba ak Serigne Abdou Diamé ak Diolé kon bi mu mel na ni waxtu yi day bëgg a kii ñu delloo la kàddu gi rek di santaat baax tey eh, ñaan yàlla dolli tawféex bu baax a baax. waaw jërëjëf kon mbokk yi yaakaar naa ni déglu nañ tey sunu gan yi nga xam ne fi mu wàccee ci ay gëneel ak ci histoire wax yàlla. Mm-hmm. ku jàng moo tax mag ñi lii rek tax ñuy jàng seen histoire muy histoire bu riche. Mm-hmm. histoire la bu riche boo xamante ni boo ko gëstoo lépp day delluwaat ci sunna. Mm-hmm. histoire yoo xamante ni kon lu nit di sonn ci alxuraan ak ci sunna ak ci nangu yar la jar na ko mm-hmm. ndax boo fi jógee ak heure la nga fi bàyyi muy njaboot gi loolu la ñuy mën a teg seen tànk pour mën a toppaat yooloo mm-hmm. loolu nag moo waral ñu koy fàttali ko di ko màggalal di ko ñaanal di fàttali liggéeyu sëñ bi nga xam ne def cee participer participation boo xamante ni bu jégg day la ndax jamono yooyu mi ngi mel ni sëñ daara bu doon jàngale rek ñu indil ko courant loolu la Makhtar moomu taxawoon. macha allah amoon yi tamit sëriñ bi doyloo woon ko ci alxuraan ku sëriñ bi mm-hmm. doyloo ci alxuraan. dafa mel ni wóolutif gépp la la jox. Mm-hmm. Uh, ba noppi tamit tarbiyee ko ba am ngërëm moom ba wane na ko mën ngaa wër réew mi mm. ndax fu mu wër leer na ne mm. mbirum sëriñ bi rek la fay tasaar mm, kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal si Mame Balla comme ni mu ko waxee tamit suba mooy doon conférence bi ak màggal gi le douze ñu ngi ciy séntu ñëpp di ñaan yàlla yóbbu nu ci te yàlla yiwoo nga xam ne sëñ Abdou Dia ak jëriñoo na ko sëñ yàlla bañ ñoo xañ yiwoo ñu sant ñëpp gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ما لا أني بنبي